di leen rek ba léegi yéen a ngi seen site internet bi ngeen taamu di rajo talibé point com ak seen chaîne YouTube bi ngeen di Talibé TV nga xam ni Talibé TV doxul ci lu dul actualité ni ma leen ko mos a waxee actualité religieuse dong jóg rajo bi nag li mu baaxoo mooy cheminer sur la trace de nos ancêtres mooy dox ci jeexitu tànk mag ñi kon tey ku gis nag fii nu ñëw war xam ni ñëw nañu kër Seydina Limaamu Laay ñëw nañu kër. kilifa kon serigne بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مبكي جلدي مبكي طالبي نيغي لين دي نيو في تي جامالاي تي سيدنا الإمام الله عليه الصلاة والسلام دي واجال أبل بو مات نيو فاسيني أي وقتان سونو مبك ينولي تون يين زيارو باخ di ziar seen àndandoo yi di ñaan yàlla fi ngeen jëm yàlla na leen yàlla woon yoon ngeen dem fa ak lépp lu soxla ak lu lépp lu ci yàlla soxla it ngeen defal ko ko si salaamaaleykum. waaw léegi comme ni ngeen ko mës a xamee rek saa su ne événement yi yéen a ngi koy ànd ak seen mbokki taalibe seen mbokki julit seen soppi seen xarit Cuun Bëgg Bàmba ci wàllum diine donc moo ñor rajo bi lu dul loolu du ci dox tey nag ni ko sa baay waxee rek appel gée ngi jub si. appel gengoy ñew ci kon sa bay ñu lay baye rek te dañ lay laaj kan mo sidna limam sallallahu alayhi wa sallam ah, wax nga deug ciun bëgg bamba wa ah, bëgg nga ku baaxa baaxa baax bëgg nga ko xamne ki ma sha Allah yemal ci limu bind rek da ngay oññu parce que mënoo kaa kon ko xamul do amoo dara lo wax ci mom uh-huh. comme mënoo jéexali limu bind mom <laughs> da ngay war rek nu ngi lay nuyu bu baax nu ngi ziyaara tam xalifatul muslimin Baye Abdoulaye Thiaw Laye di doomi yonti yàlla Isa alayhi salaatu wa salaam yonti yàlla Isa mooy doomi Seydina Limaamu alayhi salaatu wa salaam ñu taxaw nag ci cent trente huitième anniversaire de l' appel de Seydina Limaamu Laye alayhi salaatu wa salaam et mu laaj itam nit ñi xam lu xew waaw ngir ñu xam lu xew nag sunu borom li war a xew yëpp jox nañu ko. Hmm. mu ngi mun ne fang ci alxuraan. Hmm. waaw parce que moo wax ne maa naa fil kitaab yi. min shay hmm. amul dara lu mooy sàggane. ci téere bi lépp a ngi ci. ba yowmal xiyaam. léppi àdduna mu ngi ci téere bi. donc kon war na noo mën a jël. lu mel ne alxuraan axaadis yonent bi waxtaan ci wane ki nga xam ni tey jii moom la ñuy màggal téeméeri lu at ak juróom ak fanweeri at ak juróom-ñett mooy Seydina Limaamu moom day moo waxal boppam ni ku ne dégg na ko aji boo daay yàlla yaa ma charal insi wal jinni inni rasulullah ilaykum nga wax boobu wax bu doy waar la wax jooju moom mooy lan wax jooju mooy yéen nit ak jinne wuyu si leen woote bi yàlla lan la yàlla woote yàlla nee man yonente laa ci seen biir inni rasulullahi ilaykum mu ne yàlla ma yónni pour ma ñëw wóot leen jëmee leen ci ci ci buur bi yàlla kon boobu oote lu jar a déglu la ndax ku ne jàng na laa nubuwata baadahu ay baada muhammad waaw kon ku ñëwaat si ginnaaw nag ne inni rasulullahi ilaykum ah, taxaw seetlu dana am taxaw seetlu dana am uh-huh. taxaw seetlu dana am uh-huh. te fekk na itam adduna yëpp jàng nañu loolu xam nañu ko ba ñun ba man mii wax lool laa jàng loolu laa xam foofu la sama xam-xam yem. Mm. ci ne ginnaaw Mamadou. Mm. yonent dootu ñëwati. dëgg la Xaatimin nabiyyiin imaamil mursaliin waaye ama grande surprise. Mm. li may mën a jàng di gëstu yëpp. moom dane mën a Mamadou démb man la yàlla yónni woon ca màkk. maa àndoon ak Babacar Omar Ousmane Aliou. maa xeexoon Badar Xandax. xunay ni uhud xeex yooyu yëpp maa ko xeexoon bàyyi laay mu ne man la yàlla joxoon alxuraan démb maa ko jox ku ko yor maa dellu si waat ngir lan ñu ne ko lu tax mu ne wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani qawmihi suratu ibrahim li yu bayyina lahum yàlla nee na du ma yónni benn ndaw lu dul dana wax ak ña ko yónni ca làmm yow ma ko yónni kon moom mu du wax na ak nit arab kon war naa wax ak nit ci ajam parce que moom mooy seydil awalina wa seydil axirin moom mooy seydil urbi wa seydil ajam kooku mooy seydinaa limaamu léegi nag nan la ñuy xamee foo ñu dem ci alxuraan ndax dana mooy momadou kon war nañ cee xam dara léegi sabaay balaa ñuy xaw a sori rek seydinaa limaamu sallallahu alayhi wa sallam bëggoon nañu xam maanaam ñu baal ma fi mu ganee jamono entourage bi ba xam nga Sabine Sabian Sabian. wala Kaanu Nabian. Mhm. Mhm. bëggoon nañ xam sax. Mhm. jamono enfance am. nu mu demee noonu avant ñuy gën a. dëgg uh-huh. waaw loolu am na waaw war nañoo xam jamono guneem. Uh-huh. ni mu gunee. Uh-huh. alayhi salaatu wa salaam sidina Limaamu Laay. baayam mu ngi tudd Alassane Thiaw. yaayam mu ngi tudd Kumba Ndooyi. Alassane Thiaw mu ngi dëkk Tongoor. yaayam mu ngi dëkk Ngaparu.

ci atu gaday bi ci la bay lay judd ba mu juddo itam yaayam mo ko yor way diira mu ko yor yeb bay lay def na kiman yu bari maanaam mu'jiza yonent mu'jiza lañ koy waxal ken du ko bay lay yonent la. moy hmm. mu mudu demb moy ma du tay hmm. dama dama bëgg mu leer rek. parce que pour xam nga deug buñ la ci duma hmm. mucc nga waaye di tappale di tappale bañ duma si leneen lu dëgg wóorul bàyyi lay dane mënu moom mu du démb maa maa woote woon démb maa ñëw tey maam Kumba Ndoye ko jur nag mm. ca tóngoor mm. bi mu juddoo mm. ñu dox tuuti ba mu commencé dox fu mu masaa dox ba dëgg sobes ginaar day taxaw rongo ñu tuuru waaw li moomu laa la jooy mu joxoñ tànk bi in xool in gis si ah, sobe Fek raxasuñu ko joyam yoy du du du du bay mu andak lolu andak lolu andak lolu ba tollu ci dox ak moromam amna ay bes bayam daf ko yoni pour mu uti mat mu andak ay morom uti ñëpp andi wul waaw mom ana matami ma la yoni won mu ne bay man day gor mat mun munuma tiim garab ba gor ko ndax li annal asjaara tu sajjudoo li watu sallimoo nii garab gu ma tiim nga fëx dox ak sa tànk ñëw su joot nuyu ma dellu sa place noonu na laa koy gore mu ne kat wasakata abu bàyyam daal di noppi xam ne kat loolu mu wax dëgg la mm. xam nga jàng burda uh-huh. ba garab yay dox mm. di nuyu ji rasulullah tey garab ya ko doon nuyu. Ah. ñëwaat àndal nañu wax moom fii. Ah. dox nañu si kanamam nuyu nañ ko mu bañ mënu kaa gor bàyyam sa bàyyam nopp ñu doxati ba mu mën a ànd ak ki moromam nag wuti liggéey. Hmm. bala moo utul liggéey sax yaayam dañ ko dañ ko doon bàkke kumba jagata. Hmm. lan moo tax kumba jagata. Hmm. da daan jagat ay ndab di di di dënale ay gan. saa yu bàyyi la saa yu gan masaan raar ci kër gi mm. day bàyyi lay day génn dox kilomètre ak ñaari kilomètre mm. pour uti gan su fa mu gisee gan xamul fii dara mu jox ko kurusam nekk demal nga laajte Kumba Ndooy boo demee mu jox la mu nga lekk ba suur mm. ñu di ko ooyu Kumba Jagata yaayam loolu tam bokk na ci dundam bi mu demee nag ba mën a liggéey da doon ànd ak ñi comme li nga xam di dem ci dëkk yi di wër di uti lu ñu am ngir dundee seen njaboot muy lu lew. Hmm. waaye fu mu masaana dem ànd ak nit ñi def na fa kéemaan. benn rek laa la ciy jox. Hmm. dem nañu ndar. Hmm. gànjool di nappi ak di nooraani ak a nawetaani waaye ñu dem ci dëkk bi dégg fa coow. lu xew ah dafa am dey ben xalé bu jigen jankala bir moko dal fu ne dugg nañ faak mom mënu la wër am saaba bu dégg lolu ne len man dey mënuma mënuma fajj waye and na ma xalé ba xamné bi ah yalla may naka ka yaakaar na dal basi basi ba si ba si ñaané yalla dina défar mbiram ne ko ah lolu dey banu ko amé mënu gënal owal nu ko ba mu ba ko defee la mu soxla ci alal nii dina dinañ ko jox <coughs> ah boobu tamit ne kon ñun suñu mbir baax na comme dañ doon uti te kii yaakaar naa ne ñaanam yàlla mosu ko delloo kon am nañu li ñu am bàyyi lay ñëw sallallahu alayhi wa ñu indi xale bi teg mu xool xale bi dal di jël loxo mu tedd ba moog boromam la mu ca wax dal di ray biiru xale bi xale bi daal di nelaw نلاو رك اك دير ني فغ خالي بي مو جوك ييغتول بن ميتيت او وا ليمام ليو داف داي رينا واو لا لان لان لا جوخ نك من داف نما كان غير يالا ميغا خامني مومو يوني سي ادينه تا كين خامو داف نما كان غير موم nee na Baye Njañ Sàdda la tudd dafa mer mer mer ne limaamu yàq na sunu affaire ñu la uti alal alal ja toll ni nekk fi mu naan ay ngir yàlla ngir yàlla kay moo nu tax a jóg limaamu neen indem kii loo yàlla moo ma moo woon ci moom def defal na ma ko indem noonu la fo loola demee bëri na nag mais comme jataay bi noonu lii la ah. na ñu jël boobu rek bari na ay mujisaat yoo xam ne def na ko hmm. bàyyi lay alayhi salaatu wasalaam hmm. bi nga xamni bi nga xamni du dogul sax leer ga ba muy joge madina ngor la dal bi yonenti bi genné adina rek la leer ga yak andak leer ga ak yap waak yakh yak jëm jëp ñew dal ngor sayyidina muhammad waaw fasaa suy way naka si bo demee si ibnu maif. مغنان وإس خسد الأخرى فصوب نحوها حتى خدوة لم يبلغ الخلق شهوها يونتي بي صلى الله عليه وسلم دفول تي باميلام نياري فان يو مات ويس خسد الاخرى بومو دغمل الاخر رك فصوب نحوها دفا جيغي جيغ بو مات خطا خدوتن جيغي نا جيغي بو خامني لم يبلغ الخلق شهوها امول بنديف مو خام فمو تيب تانكام موتا باي لاي بومو نيوي داني خطوت خدوتن لم يبلغ علم الخلائق شهوها دوم دو تي دون mu ne démba hmm. dama dana woon jéggi naa jéggi boo xam ne kenn xamul fu ma teg sama tànk hmm. bi mu ñëwaatee mu ne man day jéggi naa jéggi boo xam ne boo ñu woon xam-xami xam-xam yëpp du ñu xam fan laa yékkee sama tànk ba hmm. parce que xam bu ñu ko xamoon coow du am ndax ñëpp Mamadou lañ gëm ñëpp Mouhamed lañ gëm waaw bu ñu bu leen leeroon ne Mamadou Massamaka moo tëdd fii si jàmmalaay moo tax mu ne ilmul xalaay xi duñu xam sama xam-xam noonu bàyyi lay def na kayitam ba mu màgg waaye bi mu amee nag ñeen fukki at ñeen fukki at ak benn walla ñeen fukki at yu jàll ay ay at ay weer ci la taxaw fii ci beñ bi fii lii sax nekk foon bàyyi laay nga dëkk sa frigo ba moo nekkoon këram frigo ba la ngay gis fa la bàyyi laay dëkkoon sa biir waaw xëy bés rek benn dimanche rek mu wàcc fii fekk yaayam Kumba moo génn àddina Kazu Rajab ñun depuis 1909 ñu ngi màggal Kazu Rajab yéegoo ko hmm. gis nga nëbbub yàlla hmm. depuis 1909 ñu ngi màggal Kazu Rajab si la yaayu bàyyi lay génn àdduna hmm. dégg nga loolu dégg bi mu génnee àdduna àllarba alxemes ajjuma samedi ci ngoon weeru baraxlu feeñ ñu julli géewe bàyyi lay oo ñaari oo bàjjanam oo jigéenam ku ne mu laaj la ñaari melaan yu weex daal di leen sante ñu defal kak ni mu ko bëgg mu kaalawoo benn ba kooloo benn ba ah, kalfaayoo benn bi mel ni kuy dem kuy dem màkk woddoo benn ba ba mu xëyee dimanche la génn fii ci tefes hmm. خمغلو مو جيك الحمد لله الذي لم يزل الحمد لله الذي لم يزل الحمد لله الذي لم يزل لولو جيك واخ ديسا باي لولو بو نكو دون تيكيل موي لان لولو نيتي فيري نيتي يون لاكو واخ نيتي فيري لا ام باي لاي مو ني ماغي سانت يالا ميغا خامني دو دنج يالا كوني خامنا دو دنج mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mm. waxam du dañ mm. mu ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne mm. jëfam du dañ xam nga mu ngay alerte borom xam-xam yi parce que borom xam-xam yi loo andi ñu lijjanti ñi xamul sax dañu lijjanti mu ne mag maa ngi leen di yëgal sama cant maa ngi koy jëme ci lazi lam yazal ki nga xam ne du dañ lazi lam yazal waxam du dañ lazi lam yazal ki nga xam ne jëfam du dañ dëgg mu jëf kenn mënu ko dindi boo génnewoon woon téere yëpp récité lépp du dañ boo xoojoon téere yi naa nit loolu du dañ moo tax bay lay yàlla ñetti yoon daal di yuuxu benn yuuxu baat bu rëy ba si la waxee wat wax ma jëkk a wax aji boo daa yàlla yaa maachara al insi wal jinni inni rasulullah ilaykum ay doomu aadama yeeg nit ñi ak jinne Hmm. wuyu water yalla yalla man de yalla mu yoni sen bir xam nga dem defon naka mak hmm. xey sabaha, rek mak yeb hmm. wa ya sabaha staji boli ga yeb mak ñep genn comme ñom si mom rek lañ yakamti ndax bëgg daanel otem ñep genn mu ne len len masna len wax loo xam ne lii a ngi si ñu ne déedéet hmm. mas naa leen a war ci kàddu ñu ne hmm. déedéet mas naa leen a war ci jëf ñu ne déedéet hmm. mu ne ndëkk delloo leen seen bopp ci yàlla yàlla mu yónni man yónnante laa seen biir gëm leen texe weddi leen texe yedd bàyyam ba moo jóg abi lahab naka tabban laka ali haza dawatanaa parce que rek ñenn la yow yow mag ñu toll ni ñun kilifa yi toll ñun amoo loo ñu doy lu dul naa ñu yàlla ma yónni yow fu la yàlla yónnee yow démb nga fi. Hmm. waa ki mujj a ñëw kay moo mujj a jëlee la la nekk si yàlla loolu rek warul ne ne hmm. yow mag nga. Hmm. am nga fu juróom fukki at waaw kii démb la juddu la la nekkoon si yàlla mën na ko andi. dëgg la léegi sëriñ bi. waaw bu loolu jàllee. lan moo ne woon jàngale Seydina Limamou. kay. waaw jàngale yi tamit jar naa dugg. Hmm. jàngale jar na dugg. Hmm. bàyyi lay daal jàngaleem. Hmm. ba mu ñëwee rek dafa jàngale kàddu laa ilaha illallah. boo dégg ñu naan bàyyi laay. dafa nekk ci laa ilaha illallah ba ñu naan ko bàyyi laay. Ah. boo dégg ñu naan waa laayeen. day nekk ci laay comme sànq. laay Mokhtar laay Mamadou laay Madiou. ba ñu ne ñu yéen yéenay waa laayeen. bàyyi si sikkar rek. mooy mbiram. Hmm. parce que moom moo waxal si làmmiñu boppam. Hmm. mu ne ma ba ma yàlla yoon yónnee démb ca mag. jox na ma charia. jox naa leen ko. ba ma yàlla yónnee démb ca mag. joxoon na ma sunna. jox naa leen ko mooy axaadis yi. Hmm. waaye bi mu may indiwaatee fii nag daf ma indi ngir ma af ma ma assuré lim ma joxoon démb. Mm. yoruma nu bu watu tashriya mm. amul charia bu ma yàlla joxaat beneen mm. lim ma joxoon démb la ma jox waaye si biir kees yam ma joxoon am na loo xam ne lii génnul woon jotul génn yàlla jox daajaloon naka cent quatorze kees waaye am na kees yoo xam ne génnul woon mbaa du kenn dajju ko kenn dajju ko xam nga laay laay laay Mamadou Makhtar mu nga woon ca kees gu ñu naan axzaab mm-hmm. lay laay laay Mamadou Makhtar yàlla moo nekk wala tanaabazu bil alqaab hmm. bi isal usmu bi sa ismul fusuq ba'dal iman hmm. wa man lam yatub fa ulaika mu zalimun hmm. yéen bu leen di lijjanteeti ci ay sant diwul na man diwulaa sant diwulaa sant leen nga wax fi sant ñu xeeb la wala nga wax fi sant ñu yëkki la te doo dara demoo fen kuy tëdd di nelaw guddig lëmm xamoo li xew doo dara bul ut bul ut maqaama mu ne ñu kon lu ñuy def mu ne ñu ñëpp sant laay lan mooy laay mooy allah hmm. tur wi yàlla ay laay nee na hmm. tur wi ñëpp di wër naan turu yàlla wi ñuy wër du dara mooy laahi hmm. yàlla tuddul nen laay rek la tudd bàyyi laay nee na li si des ay melokaan la ñiy weddi yàlla sax gisoo si kenn ku yàlla yàllam tudd allah ilah aliha laataak uzaak ñooñu lañ tudd mais allah kenn tudd ko bay lay ndek ni nañu dàkkantele suñu bop ci yalla ndax ñun ñëpp yalla ñu mom hmm. bay ba du lay hmm. yalla la moom hmm. bul yëgati kenn kula la ku dul yalla lolo tax bay lay indi lay jox ñu kon bokk na ci ay njàngaleem bala dara dem ñu sant lay sol yu weex ku sol lu weex bay lay neen du fu la neex nga tok du fu la neex nga taxaw du fu la neex nga risu mbuba mu ñuul man na yoy tilim waye mbuba mu dafa dafa dafa dafa dafa dafa set ci lu tilim kon suis mu fay civilisation. mu ngi civilisation. ben yow do reuy ba pare do tax. cette ah, sax dafa ci. def sa bok ci ci ci ci ci ci diine cette nazafa. iman. ci gem yalla set daf ci bok set dafa bok ci gem yalla yi. Euh. moy genn sax. Hmm. set genn comme ni muñ nekk genn wàlla eh, gëm yàlla mm. sa setit noonu la nekk gën genn wàllu gëm yàlla mm. iman mooy genn koor mooy genn wàllu gëm yàlla moom itam mm. ay waay takk soxna it noonu la nekk genn wàllu gëm yàlla kon yi yàlla dafa par xaaj ay xaaj jox ko waaye seet ci gëm yàlla bopp gis nga laay raxas bale rek la def ah. waaw la ca topp mooy li mu digle mooy nasiha laayante biir. xam naa sax foofu lañ doon jëm. wallaay dundu Baay Laay. sallallahu alayhi wa sallam ak taalibe yi njëkk yi. wala sax comme ni ngeen koy waxee. ak saxaaba yi ak saxaaba yi. waaw loolu mooy an nasaayax. dafa dundoon nasaayax. digganteem ak saxaaba yi. yamul si saxaaba yi waaye digganteem ak képp ku dul laayeen sax dafa dafa dafa dafa doon def ak moom. an nasaayax. walam yakun indahu maalun yudaxiruhu illaa li yutiyahul jiraanu mi masula mm. denc dërëm mm. mosula denc alal mm. lu dul ne séddale na ko ay dëkkandoom ak ñooñu ñooñu ñi mu bokkal moom Baye Laye Baye na ci nasaay yi mu daan def daf ko jëkk jàngale ne leen dafa am aw yoon laaye biir ñu ne ko luy laay lan moo am yoon mu ne dangay ngay biir jëm ci yàlla da ngay laay biir jëm ci yonent bi mm. da ngay biir jëm ci téere yàlla mm. dangay ngay laay biir jëm ci jullit ñi mm. dangay ngay biir jëm ci àdduna bi yëpp nan la ñuy laay biir a jëm ci yàlla bàyyi laay nee na antu waxidahu wa taamala bi ma amara wa tadruka ama naa wa taamura naasa bi zalik attention bàyyi laay jàngul arab de bàyyi laay kenn jàngalu ka mu ngi fi ma bind kenn jàngalu ka ku ne mooy maa diyul muntazar bu nee daara sàngam laa jàngee rek nekk doo limaamu demal toog mm. bàyyi lay jàngul bindul dajalewul téere li may wax nii mm. borom xam-xam yi nekkoon ak moom ñoo ko daan bind ci arab pour ñu mën kaa dégg mm. mais bàyyi lay mosula jàng arab ku illettré la mënu la liir mënu la bind mënu la liir mënu la bind waa démb de est mënoon naka bi mu tëddee Mamadou mënu woon liir mënu woon bind Mamadou du si arab la juddoo mosu la mën a liir mosu la mën a bind ما كنت تدلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبتلون يو دي ما لا يوني مصول جانب بن تيري مصول بن بن تيري أي بوكا دفون جنو القرآن بن يا بن لي كون يوني كون غا أمسك Hmm. yonent du sik hmm. yonent ken du ko sik hmm. yonent man nga ka khas man nga ka wax lu ne man nga ka saga la yadurunaka illa azan duñu la jar duñu la wàññi lul ay wax yu ñaaw loolu la ko yalla waxon man nga ka def lu ne way sikkel yonent musul ken musuko def bay lay ken musuko sik motam moo mu ne nga jang xam yalla jàngali wax di ko def jàngali muy tere nga bay ka digel nit ñi loolu ni ngay lay bir yonent bi moy nga gëm ko ne yàlla moo ko yónni hmm. nga dëggal ko ne li la yàlla yónni dëgg la hmm. waaye itam nga topp ay sunnaam hmm. soo saparee tamit nga dëggal ka nit ñi laay nee na wan na siixatu li aimati diin laay biir bi nga xam ne moom nga doxal kilifay diine yëpp kilifay diine yëpp goo gis waaw sëñ cuun nitu la bay laay nee na defal ka defal ka li ma la wax mooy lan mooy an tuxibahum kilifa dini dang ko wara a par force hmm. bàyyi laa nee na kilifa diini hmm. wa an tattabiahum hmm. leen top, a wa an tuwaynuhum ala amri din kilifa diine dang ko wara dimbali ci mbiri diineem o taamura naasa bi zaalik gis nga lu mu wax rek nga ne bu ko yemal sa bop de way dimbal nga wër ko wax nit ñu def li nga li ngay def waye lay bir bi jëm ci yàlla ba muy ba muy wax sax ci alxuraan dafa ne xuu anfusakum wa ahlikum gis nga naaran xam nga xuu verbe la boo xam ne benn benn lettre rek mooy xoo waaw yi si topp yëpp dañ ko ci def pour ñu xam fi jëm xuu xaa xii na xi <laughs> yooyu yëpp mais xoo rek mooy verbe bi li si verbe boo xam ne benn arab la amul si tubaab de ma ko si benn mun jit amul si benn waaye boo demee ci ci ci ci dictionnaire arabe di nga fa fekk verbe bu ñu naan xoo mooy xi wala xaa xuu xiina ngay ndëg yàlla ndëg na xuu anfusakum dawaloo leen seen boppa wa ahliikum ak seenu ñooñ naaran sawara moo tax da nga koy digal nit ñi ñoo si sa bopp hmm. waaye nag war na si lii amatil muslimin hmm. lay bir hmm. bi ngay doxal sa diggante ak julit ñi moy hmm. an tuhibuhum jami'an nga bëgg nañ ñepp kon señ tun yow est ce que nit war gis moromu julitam mu am ci ben xil lendem lendem kon doto julit wala wañ nga sa bop wañ nga sa bop war nga man lo yéene sa moromu julit safan wañ nga sa bop lo yéene sa moromu julit ci lu baax yokka nga sa bopp dañu wax ni sama boppaa ma la gënal dug bañ naa la juum nañ wérul <laughs> loolu wérul yaa ma gënal sama bopp loolu moo wér hmm. loolu mooy sunna dégg naa benn borom xamoon sax ni <laughs> yoonu teggi mooy yërëm daw wallaay weeg mag weeg mag sa morom nga def ko sa bopp nga def ko sa bopp hmm. léegi léegi léegi saa waay xam xam naa dinaa la xaw a dagg. dëgg ñëwoon rek. léegi bu ñu foofu. Mhm. lan ngay lay taayalee wala lan ngay layalee ni. Mhm. bàyyi lay nga teg ko ci ay euh, xam-xam bu leer. ni mhm. mooy yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam du man dong maa ci am nanti déedéet waay ndax leer na ñëpp ni. ñu bëri am nañ ci. xilaafaat. am nañ ci li nga xam ne am na sax ñu dem ba kay digat. waaw waaye léegi léegi. ban wax nga xam te ni boo ko waxee. ñi jàng dana leer ci ñoom. ñi jàngut dana leer ci ñoom. wallaay wallaay. waaye jërëjëf. yal na nu yàlla doon ak a neex a waxee kii. kii benn bi ma la si jëkk a jox tegtal. si borom xam-xam laay wax de. waxuma nag kuy kuy xeexe xam-xamam. ku ku am xam-xam. te tey déglu. te yem ci xam-xamam kese. di attewoo ci xam-xamam. Mm. kooku laay waxal nag. Mm. taxuma koo xam ne fa jël xam-xamam pour xeex. Mm. parce que ki am xam-xam di xeex. mën ngaa jàngi 30 ans. ñëw yor sa conférence conférence trente minutes wala trois trois heures de temps xam nga moom mën na kaa dindi si benn baat see eh, nga naa mu ne waxoo fi dara ak li nga jàngi woon lépp kon kii xam bëgg bëgg bëgg bëgg di nga waxuñu kooku ki nga xam ne dafa yor xam-xamam yem ci xam-xam di xeet xam kooku la ñuy waxal kii moom moo taxaw si moo taxawal boppam ne inni rasulullahi ilaykum mm. tay jaru sax ngay ben téré hmm parce que ki taxaw ne ma man la yalla yoni may momadou Demba may maa du tey inni rasulullah ilaykum la wax lolu rek lolu rek naka borom xam-xam yi jël xam nga kañ la ko waxon 1843 1883 1883 xolal sànq maa ngi la nane bay lay mu ngi tuddu 200 1261 déedéet 1261 la oote nañu ma ñëpp nañu ma ñëpp bal 1261 hmm. ba moo moo tombeek 1883. c'est hmm. la taxaw xol 1883. 1983 ñëw na fi <laughs> man 1983 la jël soxna hmm. hein waaw ñëwaat na fi téeméer après ba ñu ngi nii amul lenn lu ci deñ xoolal ko fi mu ne xoolal fi mu ne. يلا ما وخني إن الأرض ننقصها من أطرافها أفلا تعقلون يلا موني سوف ما كي جيخل كي بتي جيجي جيج لا يبل موي مابا سوف بن بن دي بن دي مابا سوف بمو جيخ تاك بمو دس بن باك تبا باك بمو موي فان موي في يوننتي بن فان سول يوننتي با لا إله إلا الله فان سول يوننتي با موي دس yàlla ne ma dajale awal ak aaxar atte leen ñi topp yàlla ma tàbbaleen ajjana ñi toppul yàlla ma tàbbaleen sawara bàyyi laay nag comme nee na mooy Momadou kon fii la Momadou mujje Momadou fii la mujje nekkul ma dina de Momadou ngi nii maa ngi toog Momadou ngi tëdd nekkul Madina de mu jël nag pour pour af pour wóoral leen ne la yàlla wax dina am mu jë mu randal géej fële fi yëpp du woon euh, suuf ndox la woon xaw ma sax fu mu yemoon fële gisuma ko mu randal ko ba fële faatu leen fuul leen ma fii al al al baxru laa yanaamu wala yaftari min xaybatillahi tabaraka wa taala géej du nelaw du yox yoxi ci ndigalal yàlla bu dee yàlla yónniwu ma géej ngi maa ngi bu dee yàlla ma yónni géej a ngi maa ngi géej sax gëm na ma ñëw na ba jébbalu si man fii la ma yàllay denc bàyyi ba awal ak aaxar ñëw ma oote ñi ma gëm ñëpp yàlla yàlla dajale awal ak aaxar yëpp mab kër yëpp ba mu des sama pàkk loola loolu lay wax de mm. ma dajale awal ak aaxar yàlla atti ñëpp géej gii mm. aka niroog jaanama mm. noonu la ko waxee moom moo ko wax de aka niroog jaanama wa hiya tafuuru takaadu tamayazu min alxaysi kullama ulqiya fiha fawjun saalum xasantuha alam yaatikum nazir gis alam yaatikum nazir la ilaha illallah bàyyi laay ne géej a ngi aka yëngu aka rëngi-rëngi aka xóot aka yaatu aka gudd aka kawe ay xool ka rek wayu tafuru mu ngi dem rek di fërfëri te kaadu tamayasu mu ngi bëgg baj-baji ngir songa nit ñi lekk leen la tax yàlla ne alam yaatikum nasir xanaa amul ku ñëwoon di leen waar na nasir boobu nag rasul la ci yàlla nam rasul rek la yàlla wax nasir ñi si des ñëpp man ñi ñun ñu ngi def ay ansaar mais nasir boobu ku yàlla yónni la si nam ma ko defee nag loolu doy na ci borom xam-xam yi ñëw fii. Mm. xool kii biñ koy suul deful woon nii de fii lañ ko defoon nii mais buñ doxee 33 ans yu ne mm. ñu dolli juróom-ñaari marchepied ba pare nga wàññi marchepied yi. Mm. te ñi ko doon def calculé wu loolu. 33 ans yu ne. yàlla na ma yëkkil ko ay daraja ñaar fukk ñaar fukk ñaar fukk ñaar fukk ñaar fukk ñaar fukk amuñ juróom-ñaar. juróom-ñaar fukk. تكون خمنا نجوم نعرف أمنا لهم يدف إن تستغفر لهم سب إذا مرتن فلن يغفر الله لهم بيا لنا بولن جعلوا جروم نعرف كيوم دبلن جعل كم جروم نعرف كدرانس واو كن لي دوينا تكل يلا ميون نموك وح سيتان لينك ولو تخول علينا باند أقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لخطانا من الواتين فما منكم من أحد أنه خاجزين إيه يا الله يا رسول الله ما له أي boo juumoon ba da ba waxuma sax xata mais virgule soo ko dindi woon si li ma wax danaa jàpp si bi mu xool dagg kenn du ci man ñi la àndal ñëw bu ñëwee mënuñ ci dara ndigim moom démb lool la ko yàlla wax tey bu ñëwee ne man a man waxaat li toog fii ne yàlla moo ma yónni boroom xam-xam yi fi ne woon yëpp amul kenn ku ko mën a dindi léegi bu boobu jàllee ak ban nga ñuy joxaat ci misaal léegi nag bii ma la jox mu ngi nii xawlullahi taala subhaanahu bismillahi rahmaani rahim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 ñu da ñu dawal ka yàlla nee na man maay xuddoos maa sell maay buur maay man man daal mën man man maay man mm. ba pare nag mu ne maa yónni ci naar yi mm. yonent boo xam ne xamul dara min hum mm. mu juddoo seen biir jàngal leen sellal leen xam leen luy téere bi te kat xamuñu woon dara jëkka loolu waaye nag wa aaxari ne am na ñoo xam ne ñii sa mujj ga la maa yalxaqu bihim yéen ak yow yonent bi ak say saaba dajeegu leen nag ñoom min hum te boobaa kooka mu ngay juddoo min hum ca ñoom ñama koy yónni min hum la maa yal xaqu bin zalika fadu laa yutima yàlla nag lii nag ngëneel la yàlla la soo demee su tafsir ibnu kasir yonent baa ngi koy fay wax ñu laaj ko mu ne mu jël salmaanu farisi laay sa bopp ba ne ñi may wax ñok Salman ñoo niroo sunu yonentu gu mu gi fofu lay dem Aliou laaj naka almadu minna am min khairina munaka bal almadu minna yahtimu law bi diina kama fukhita futixa binaa bina yunqazu alfitnata wa bina yu yu yu binaa yun tawfiid wa bina yunqazu alfitnata munaka madu ñun la ñun ci la yàlla daane li fitnay bokkar le waye ci la yàlla da xal xalsate daane le ëllëg fitnay bokkaale waat ca der bu ñuul ba. gis loolu benn tegtal la si. waaye nag alxuraan la loolu. yàlla ko wax du deñ. te woo ma arsalna min rasuli wax naa la ko léegi. waaw yàlla xam nga dèjà alxuraan boo nee dara nekku si da ngay jum ndax boo nee alif laam mim doo ko mën a firi. alif laam raa doo ko mën a firi. kon bul ne nangam newu si. xaa mim doo ko mën a firi. aha kaaf haa yaa ayin saat moo jëkk a wàcc. ba mu ñëwee Jibril dane dana yonent bi kaa mu ne xam naa ko haa mu ne xam naa ko ayin mu yaa mu ne xam naa ko ayin mu ne xam naa ko saad mu mu dule ko xam naa ko mu ne mën de xaw ma ko ma dañ ne ma wax ko rek ma wax ma wax la ne la léegi bu ñu jógee ci xam naa sax temps beeg nu xaw a xool yan misaal nga ñuy joxaat rek. waaw yi misaal yi. donc mën naa la woon fii quelques téere rek. Uh-huh. yoo xam ne yii du tay du bërkër ti démb la woon ca naar ya. ba yéen a bayyin wa mayis li baadil kut bi axrajahu wasxa bi tartibi indal baadiya faxal génneel ma ay téere yoo xam ne yi ñoo génn limaamul mahdi yu nga xam ne tey ku doon seeti limaamul mahdi yu nga seet nga xàmmee ko mooy kan wasxa bi tartibi te nga xereñe nag ni ngay tegtale téere yi ndax ñu mën ko seete noona ngir ñu mën xam ba ñu mën a bu rek xam ne mooy ñu ne ko ñu jëkk wax mu sumal bayaanu sumal bayaanu بنزهة المجالسة وخال مولده في مغرب العالمي نزهة المجالس كنا خمناك نينا وخنا ني جدوك الإمام الماديو جم جف سو بنيو خمبلا واو وخال أيضا مخامس على أربعة قد ملكوا هذه الدنيا بلا تلمي من ماديو بنيو موي موي ñeenteel موي جروميل ñeente ña ñeente ñan ñi ñi ilifoon addina warngal képp Souleymane iliful Balxiis ah Kële eh, Zul Xarnayni uniforme nañ àddina ñooñu ay jullit lañu waaw yéefar yi waaye sama yaram a tàng waaw yéefar yi tam am na fa ñaar ñu jiite ñu ñu ñu ñu ñu ñu uniforme àddina te dañul waaw sama bopp yi yàqu na léegi sama màgget ma xalaat dégg nga mm. waaye nag mu ne limaamu mooy juróomeel ñeent ñooñu mm. waaw waaye nag ñu nekk ak kan mu ne kaza masaarixul anwaar bayaana limaamul mahdiyu muntazar fii mahribil tahimi masaarixul anwaar it wax na ne limaamul mahdiyu mu ngi feeñ ca saw bu sës ba waaw bayaana mawlidohoo aydan wa maskanoo xaqan wa baasatoo fii saaxili ruxami mu ne masaarixul anwaar leeral na juddug limaamul mahdiyu leeral na dëkkuwaayu limaamul mahdiyu leeral na wootab limaamul maadi yu fan fii saaxilu ruxami ca tefesu géej gu ab bari yërmande ji mm. ñu nekk ak kan mu ne masaarixul anwaar ba tey nee na wa laysa arabiyun mm. kon nag ku ne ku ku fi ootee ku dul ara ku ku arab bu fi ootee doo maadi yu mm. wa laysa arabiyun limaamul maadi doon arab si ñun nee na ñun liñ jàng sonante bi maadi yu bu ñëwee du doon arab ah, ah, wa laysa arabiyun walakin ajamiyun nee na ajam lay doon lakin ummiyun daa sax leen kulli mi ku fi ñëw yonent bi nee na maadu du jàng jàngul bindul comme man ni ma ñëwee jàngu ma bindu bu ma ñëwaatee du ma jàng du ma bind kon ku ñëw ne leen may maadu yu fekk jàng si daara du maadu yu dem leen seeti keneen mu ne bayanoo noorul absaar yi fa qaala lahu abool xasan askari xaqan bi laa waxaami noorul absaar na dikkuk maadiyu nee na kooko baayam asan lay tudd kon ku fi ñëw te baayam sa baay tuddul asan boo ne mooy maadiyu nañ la wa nañ la bàyyi si ginnaaw askar yi asan as al moomu nag dañ koy xàmmee ci mu dem ci xeex te maam Alassane mii demoon na si xeex Omar Foutiyou Omar Foutiyou euh, do oññi leen ne leen yéen doo leen dem ci xeex dem leen xaar kii juddu maadiyu si yéen la ne waaw mu ne itam masaarixul anaa rox de mu ne fii lay la tinni si min chaabana mawlidahu madiul muntazar buy ñew mu ngi judd ci digg nisfu shaaban ci lay judd mawlidoo fi hanrashin ci atam junni ñaar témer ak juroom fuk ak juroom mom ñom loolu lañ wax mu ne machar wan neen loolu la wax waye ndu ku fi ñew ne len moy madiu ngeen laal juddom juddul judduwul ci baraxlu judduwul ci digg baraxlu du limamu ki mu ngi judd minuit le 14 min wi ci guddi ñu ne suba la guddi lee la la la ni su caaban ci la limaamu judd te démb lu mu waxoon mu ne alaa inna rajab shahrullahi wa ramadan euh, wa wa shaaban shahri wa ramadan shahru ummati rajab mooy mooy weeru yàlla sama weer mooy shaaban mooy baraxlu waaye weeru xeer wi mooy Euh, mooy weeru koor te kenn xamul démb ci histoire yonent bi lenn lu am ci euh, baraxlu lu lu dul si bésu ni su caabaan ba yàllay wëlbati penku ba bésu ni su caabaan la ko wëlbati bésu ni su caabaan tisbaar julli ñaari rakk mu leen wëlbati ku leen jublu màkk jublu kaaba ga si la ko yàlla wëlbati léegi bàyyi si la juddu tey ci premier Chaban ci la oté kon amna fi ñaari événement démb ben événement lam tay amna ñaari événement kon walal akhiratu sa mujj dund xayrun lak min ula nee limam khurtabi xurtabiyu moom itam leeral na lima ma duyu khat khara wax na ne yëfaru akhir zaman ma dalalati nujumi limaam xurtabiyu ku ne xamna ka tafsir bu reuy la limu ci def ken ken munu ko jexal muné ha ha khala xaala yësëru dana feeñ aaxiri zamaan mujj gi jamono maa dalalati nu jami day ànd ak biddéew <laughs> billaay ku fi ne maa duy te doo maa duy nga neex a xam nee na day ànd ak biddéew biddéew boobu day am ak ci ci ci ci ci asamaan si ñëpp di ko gis day bëccëg guddi ngoon suba timis heure boo jogee gis biddéew bi kon ku mooy maa duyu <laughs> xam nga maa duy dañoo bari mm. ñëpp baa ngi naa may maa duyu waaye ne imaam xurta bi yoo wax de mm. moom nee na ku fi oote ne mooy maadi yu te àndoog vidéo boo xam ne sax na si si at si si si asamaan si at boo ne mooy maadi yu nee na doo maadi yu wa xisboo kuréelub li maamul maadi yu ñooñu ñooy kuréelu yàlla dëgg dëgg dëgg kon laa yéen a ngoog laa yéen a ngoog ñooñu ñooy xisballaay yaa ajaban oona kéemaan ñooñu kat raajin xadan ñooy doon na ëllëg jannatal firdawsi ajjanay firdawsi bi si mi ànd ak xéewal ya loolu la wax waxis boo nee na fa xaala aydan wax na wala yaati illa ma isa xanaa beneen beneen beneen kéemaa na ngoog nee na maadiyu du ñëw tàndoog isa doomi mariama ja te dañ ne woon ginnaaw moomu du kenn euh, beneen yoon du ñëw mm. waa lu fi isa di xañati waaye nag heureusement nee na mooy Momadou. Mm. moo indi andiwaale Isa. Mm. kon cent vingt quatre mille prophètes ñoo am dara yokku si. ba ñu ba ba lépp matee Issa dafa ñëwaat ma Mamadou ñëwaat hmm. Mamadou nag moo jur Issa moo tax mu ne wala yaati du ñëw mukk moom Mamadou hmm. illa ma Issa lu dul mu ànd ak ñu ne koy Issa mu ne rooxul xut si hmm. moo roox yàlla gu sell ga mun katimi mooy ku ñu ne bëgg ñu ne ko ah mu ne wowal xalifatu mooy doon xalifaam lakin baadoo abadan tajudu millati xaqan bila waami suñ tuubaa nee na ay déglu leen ma ma ma ma baaxe leen maa bii dina ñëw de ñu ne ko ah Isa dina ñëw moo koy doon na te nag maa ngi leen di baaxee wax wax boo xam ne ku ko weddi ëllëg yàlla dina la fàdd man baa abil man baa a raddan fa yantam ku weddi sama mbir mi dangay dangay da rëccu ji kon kooku mooy maadiyu kii mooy Isa ci gàttal mm. waaye amul ni bàyyi laay lu moom la tegtale ne kii mooy yonent bi mm. lii nga ma laaj mooy loolu. Hmm. soo soxlaa la ne itam nga laaj. léegi gannaaw gannaaw ci loolu rek xanaa temps bee ngeen ñuy xaw a xoj ñu jëm ci appel bi. waaw appel bi mel na ñaari fan ñetti ñaari fan ñetti fan. léegi rek ñu dugg ci. ñu dugg ci bi ñu tënk ci tënk rek. Mhm. appel gi ñu mhm. jublu ci. wallaay wallaay appel bi nag li ko waral mooy li ma fi wax léegi. Hmm. kii na yàlla moo ma yónni. Hmm. ci fu fi mu lëndëmee. fi mu méttee. waaw mu di ko def. ñu naan déet. ñu naan waaw ñu naan déet ñu naa waaw ñu naa déet naa waaw ba tey mu am téeméeri at te waxoon nañu ne boppa téeméeri at yu ne dina am ku yeesalaat diine yi lislaam te ku yàlla yi considéré la xam nañu ñi ñi ñi ñi doon doon yonent bi téeméeri at bu ne waaye bi ñëwee si euh, mille deux cent mille euh, euh, mille xaw ma mille mille trois cent. Mm. bi ñu ñëwee si mille trois cent. Mm. nee na xamatuñu kooka kan la. Mm. parce que nit ñi nit ñi xo gisuñu ko parce que kii la woon. waaye bi bi mu amee téeméeri at itam. bàyyi Seydi caw mii borom xabru bii. moom la fi fekk. mu ne nañu fàttali ko appel a bàyyi ba mu ne ajiboo dayi laay yàlla mu yónni. borom xabru bii moo fi instauré appel. pour ñu xam kan mooy limaamu ak lan la waxoon. appel du dara lu dana yàlla moo ko yónni. mën a Mamadou Demba mën a Maadi yu tey ku yàlla baaxe ku ne way nga Mamadou ba yàlla jox la li mu la wax jox sëñ Tuubaa way na Mamadou ba yàlla jox ko li mu ko jox ay bihin tazartu bihi abgi xadaawatari wowul mu jawiru fii ahli wa fii watani waaye jàngal loolu yow ya sëñ Tuubaa nee na man day Mamadou lay dimbandikoo ba lu ñàngalu ne soo taxawee sama kanam su ma la ne salli ala Muhammad nga wedam doo dara mu ne Momadou moomu nag huwal mu jawiru yàlla saxal na sama bokkaale moom fii ahli ñoo bokk benn der wa fii watani ñoo bokk benn réew. xam naa loolu leer na. ñoo bokk réew kon sëñ Touba nee na Momadou sénégalais la Momadou nit ku ñuul la moom Momadou mu ngi Sénégal parce que sëñ Touba mosuloo dem màkk. Alaaji Bamba sax jekkul. Alaaji Bamba sax dafa jekkul. dem demul màkk. kon bu ne woon fii ñu seeti ka waaye fii ahli Mamadou nee na fii ahli wa fi watani kon nag loolu moo waral appel gannaaw ci loolu dégg nañ loolu léegi déroulement appel gi rek lañ bëgg voilà léegi déroulement bi uh-huh. jafewul uh-huh. mooy suñu xëyee altine incha allah ñu ngi ubbee uh-huh. appel bi ca yont yàlla Isaa taawu Seydina Limaamu Laay moom moo nekkee moo nekk Cambérène Cambérène moom la ñuy xëy dem nekk fa wax ay jalooreem sëriñ bi ubbee fa appel bi muy feet boo xam ne jaamu yàlla la boo xam ne dañ siy sàkku yàlla ak mbégte bégee li mu oote woon te muy dëgg bu ñu demee ba foofu jeex uh-huh. ngoon gi bu ñu jullee tisbaar mm. ñu nga jëm xuntima mm. xuntima mooy fi ma la waxoon léegi ne bay lay ba mu ma Madina dal na fa ngor du yoofin mm. fa la dal am fa mille et quelque guddi gu ne muy wër fan lay ju fan lay juddoo uh-huh. ba mu gis soxna Kumba Ndooy mu ne kii de laay tànn mooy doon sama yaay sa ëllëg sa fii la ñëwaat yoor yoor bi fi la ñuy nekk ak sanga bi mu jàngal ñu njëkk jàngalee bàyyi lay fii lañ koy jàngale le jour là le le mardi suñ sa noppee baa ñi ba pare fii la ñu ñëwaat si tante bi nag cérémonie officielle uh-huh. mardi bi mardi bi ñu def waaw lundi bi fii ñu ñëw lënd bi mooy Cambérène xunti mi si ngoon mardi mooy fii si suba. jàngale Baye Laye. jàngale Baye Laye c'est cérémonie officielle bi fii mooy mardi. Uh-huh. loolu mooy déroulement bi. Uh-huh. ñuy ñaan fekk ko jàmm. Uh-huh. te ku fi ñëw ku ne. yàlla na nga yokk. yàlla na nga yëkkatu yàlla na nga yaatu. yàlla na nga yéeru ci yërmandeem yàlla. yàlla nu yàlla wërsëgal wér. ak wóor ak wërsëg. wér wóor wërsëg. wér wóor wërsëg. boo lorul boo yoree wërsëg du ko jariñoo. boo wéree woo am am wërsëg. di nga xam foo koy dem waaye boo wóorul sa dara du dem allahuma salli ala sayyidina muhammadin ñu ngi ziar xalifa bi bu baax di ziar saaba yi di ziar ñëpp allahuma salli ala sayyidina muhammadin loolu lan ko xamee Baye Laay lan ci Baye Badou Laay lan ci imaam Baye Badou Ngom Laay wax imaam Baye Badou Ngom Laay lan ci àndaloon moo nu dalaloon tey fii ci Yoff Laayeen nga xam ni ñun waa rajo Talibé cheminer sur la trace de nos ancêtres dox ci jeexit tànk mag ñi dafa mel ni tey xolu Laayeen yëpp sedd na ndax macha allah wax ji tegu na ci xam tegu na ci fa mu war a tegu dara de ci ku ko dégg sa xel war na mën a dal kon saa su ne di leen jox dig daje ci jouru cérémonie bi jouru appel gi incha allah fii seen rajo bi ngeen taamu muy rajo taalibe point com kon di leen wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh